coo yooyu moom xanaa di ko naqarlu dabor naqarlu ko ci Euh, politique du saaga politique du xaste politique du doole donc du fekkee ni loolu am na parce que man dama ko dégg rek vraiment gisuma ko lu ñu naqari la surtout moom nar a dox diggante jigéen ak góor après nañ ko waaye aussi ñu bëgguma ñu jël ko mel ni lu lu musala am la lu ñu ñaawlu la ndax suñu diine suñu askan suñu cosaan ko dàq waaye yéen ñi nga xam ne yéen ay boo xoolee àddina bërki démb Corée bërkaati démb Taïwan bërkaati démb Japon euh, Belgique bés bu ne nga gis ci assemblée nationale fii sax dañ ne dañu poñante waaye fi chaise yi lañuy ñuy loolu donc politique moo demee noonu dafa am nit ñi foo xam bu ñu fa tolloo seen xadar mooy ëpp te Sénégal xam nañ ni ñun lu ñu dugg dañ ci excessif li tubaab di wax tout si nuit maanaam lu ëpp rek day yàq mbaa lu ëpp tuuru léeg-léeg dañuy dugal ci mbir mi xadar bu ëpp moo tax ba duñu mën a euh, kii euh, dajale téye suñu suñuy neer mais li ñuy ñaan moo di nit ñi delloo si xel parce que nag député yi nag ñun ñi ñoo leen fal bu ñu leen tànnee yóbbu leen ndakaar ñu nekkal ñu fa muy fukki million ak ñeent Sénégal ñu jël ci téeméer juróom fukk rek loolu yàlla moo ko dogal waaye yan la sas la taar la te dañu war a nekk ay modèle pour ñu leen di ñaan mooy ñu bàyyi aussi ñun politiciens yi parce que ci ñun rek la suñ nekkee ci mairie yi di waxtaan juboo suñ demee conseil départemental juboo assemblée nationale sax li ci ëpp dañuy juboo naam am na incident bi ñu war a góorgóorlu parce que nit ñi mënuñu toog di la xool Euh, bu ngénte amee ngeen mel ni yéen mburu ak suukar su dëj amee nga ñëw di jooy ba pare bu ngeen fa génnee ànd assemblée caméra yi taxaw rek mbaa rajo yi nga commencé am jikko yoo xam ni ñëpp xam nañ sax meloon noonu daa maanaam day mel ni léeg-léeg da ci am cinéma opposition mënut a nekk fii tey di laaj loo xam ne ñun ba ñu nekkee pouvoir barki démb doxuñu ko woon mais pouvoir aussi mun ta nekk fii di teg opposition loo xam ne bi mu nekkee pouvoir da ko doon donc loolu mooy problème bi dialogue boobu am na ñu ngi ñaan ci kaw ah bi gannaaw bi ko sëriñ si ñaanee ñu baax ñi ci réew yëpp ñaan ko classe politique bi sax ñi ci ëpp ñaan ko yéen journalistes yi maa ngi gis ne bis bu ne yéen ngi bind ci loolu ñu xool ni loolu moo des Sénégal démocratie baax na waaye démocratie boo xam ne euh, am na daal bu doon ni bâtiment la dañ naan defar nañ ko ba mu rafet waaye peinture bi moo des moo di ci kaw mag ñi di waxtaan te parti yi politique yi bari na parce que Sénégal léegi ku mus a nekk ministre foog ni yow war nga nekk président de la république loolu aussi problème bu rëy la dem sa parti commencé xeex parce que génn nga gouvernement mais ñun ñi ak ñeneen génn nañu plusieurs fois ci ay fonctions dañu delluwaat defi leneen politique mënul nekk métier. et donc loolu aussi loo xam ni métti na bon mais war nañ ko waxtaanee parce que lépp coow réew mi yëpp ci ñun politiciens rek la du ci leneen nit ñaa ngi bay baykat yaa ngi dem tool artisan yaa ngi liggéey yéen journalistes yéen a ngi góorgóorlu Serigne Sarr ñuy ñaanal macha allah nawet bi am na ren. mais li ci des mooy suñu wax ju bari yi ak suñu coow li te coow li dara jaru ko parce que li ma la wax léegi rek sëñ Fall waxoon na lu yàgg-yàgg dañ naan ak loo am am alal fii la dëkkoon lii moo ko moomoon fii lañ ko suul te loolu nag kenn ku ne war na ko bàyyi xel bu ñu ko bàyyi xel delloo si réew mi euh, macha allah delloo suñu xel yàlla ma doon dimbali Sénégal jëm